combat bi. lu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ñaaw ma wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat loolu ci bañul moom boo ñaaw bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat oo fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tafatine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tafatine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la man li ma wax moom laa xam mun sama kopp Fodé te incha ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na suuf la nga xam ne du sedd te fu ma woo maa ngi koy xaar pare naa ci lépp. waaw d'accord loolu moom waxam la quoi. te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko ne puusal day puus pour man. fépp ci booteel Mboñaa nekk parce que la déggee gis nañ bi ñu ko def mais dama ko xeeb dama bëgg bii incha bu ñëwee ñu tëj porte ci kàttanu yàlla incha allah. salaamaaleykum mbokk yi le huit la tafaatin booy ñaa Niang arène nationale le huit août incha allah rabbi dina tàng dina neex. waaw na ko amateur yëpp xaar lamb ju rëy lay doon. di leen nuyu bu baax a baax te di leen jaajëfal comme ni ma ko daan defee nee leen à chaque événement Leewtoo TV dafay daal dem indi leen lépp lu xew ci événement bi. tey jii le 27 juin kan moo woote Jamtan production la mu woote nag arène nationale la ko woo ñaari xale ñaari espoir ñu dox ci diggante nga xam ne mooy Tigre Junior. Boy Jaxaaw di dem xool ambiance te ñëwaat. mu ngi noonu nag ah. nekk nii fii la Bilal. waaye Kébé Diakhara combat baa ngi noonu. muy noonu nag combat bi dox ci diggante Boy Gueye ak Bounama gàccay ay Kébé li mën a mën a waxal mooy ñaari xale yu ñemente nii diggante Elo ak vite fait Elo suñu nday joor écurie Doubless écurie bàyyam la ne jëlal tànk ya lu muy def nii vite fait jëlal tànk ya waaye dafa doon caat vite fait ak Elo door na ko oh arbitre lu mu wax dañuy bare war wala da koo mu daanu wala ñëwaat leen ñëwaat leen ñëwaat leen ñëwaat dañu koy bërewaat waaw waaw jël amul vite fait da ngaa teel a bàyyi <laughs> Kébé vite fait daa teel a dem mbër danga koy yeggali mbër danga yeggali loolu wóorul arbitre ba sifflé woon na diggante vite ak elu vite fait Serigne Aida doomu Double Less écrit Double Less coxaasaat na vite fait daal di koy dóor vite fait elu vite fait elu vite elu vite fait loo xeex la bëgg elu jàpp la bëgg ñu xool fu waneen di mu jëg gëtam vite fait elu yàlla nii vite elu vite elu vite elu vite Elou daan na vite fait def ñorul mu defal la ko Elou fils de Double Less daan na vite fait Elou daan kii gal na sama cher siyaar naa leen bu baax maa leen di bëggee di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp képp koo xamante bi nii ñu ngi def presse en ligne bi sant naa leen ah, gërëm naa leen cant bi nag maa ngi koy teg ci loxol ki nga xamante ni mooy buur géwél suñu PDC wax dëgg yàlla mën naa ne sama papa la mais guddil na ma bëccëgal na ma Abdou Tall bu xarañ Amdi Moustapha organe ñi dëkk parcelle ñëpp maa ngi koy teg seen loxo bu baax a baax grand Modou Baye Fall borom xel comme base alliance biram maa ngi teg loxom ci nuyooy ci ci ci nan laa ko mën a waxee nuyoo mbër yëpp maa ngi koy teg loxom faadal moom duma ko nuyu ñoom Fatma yéen ñi duma leen nuyu parce que ci ngeen bokk samay mbokk samay am di jàmm baay faal yi ak yaay faal yi sant naa leen bu ma waxee daanaka mën naa ne damay jooy parce que ñi topp sama ginnaaw xaaj bi duñ samay mbokk wallaahi lancim xaaj bi xamante moon de la sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp sama tarkindaay nag père ak amet fii ba jàmm gan maa leen di sant bu baax baax ñi ci ginnaaw ñëpp mënumaa jaar kenn ku nekk ci turam mais wallaahi lancim kenn ku nekk bëgg naa jaar ci turam ne leen sant naa leen gërëm naa leen maa ngi leen di xaar ci kaw. ku def lu rëy am lu rëy nga nekk ci làmb ba tey ji ñu tuddee la bés ban yëg-yëg nga am. Ndeye Mbacke mooy li ma wax léegi yëg-yëg bi bu ma ko dee wax fii ba suba mën naa ne du ma fi jógee sama ginnaaw sant naa ñëpp bàyyuma kenn boo limee boo nekkee di lim da ngay juum nuyoob reporter teg naa ko ci sama loxoy papa Bour Guéweul nuyoo mbëri teg naa ko ci loxo alliance biram ak di jee nuyoo ñi nga xam ne dañoo nekk ci monde de la lutte am di Moustapha organe grand Abdou Tall grand Modou Fall xel kom baas Modou Baye Fall. mën naa ne ñi fi teewee ñëpp tey bu ma limee damay juum di nuyu sama yaay di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram yàlla na fekk sama njariñ di ñaanal sama papa yàlla na ko yàlla xare àjjana te yeex a ñu di nuyu sama goro nag bu baax a baax bis bi jàppale na ma ci di nuyu Oustaz Kane di nuyu Ndey Mbu di nuyu sama bàjjen di nuyu waa kër ga ñëpp ma kenn. Ah, comme baba. Arbitre sifflé na Arsenal. ak Sara bu Dodoraat Arsenal bu Langsaane Arsenal moo ñu won ginnaaw Sara woon ñu kanam ñoom ñaar ñi xaw neexoo ngemb kebe ñu ngay lewtoo Sara ak Arsenal lewtoo bay diib cay lewtoo Sara ak Arsenal Sara Arsenal Sara Arsenal ñu ngay lewtoo Sara Langsane Sara lewtoo lewtoo TV kenn moom waaye diggante Sara Arsenal Arsenal bu Langsane saara bu door dooraat ma déggee door dooraat sama xel dem ci Arsenal doon na ko kii di Sara ko épercule épercule dalul ay bu la boobu daloon ñu gis su garaaw Sara Arsenal dagg nañ leewtoo ba mu ngay séeréel ak petaake ba Sara doddoraat Arsenal Langsane ari bang le naan bëra leen Sara door na ko léegi dóor bu dal Sara dóoraat na waaye lii ni nii Sara Arsenal Sara bu dóor dóoraat dóor na dóoraat Arsenal fayu na léegi coxaas dóoraat na Sara Arsenal wala yi na Sara ñooy xeexee kaw mbaa kaawoo du mujj mbaa du ci mujj Arsenal sara Sara Sara suñu càmmoñ Arsenal suñu ndeyjoor Arsenal seen combat bi daa war di calcul def na déplacement latéral moom Saara Saara Arsenal drapeau moo du ànd sans frontière ngeen di bëre drapeau xale bu am jom xale bu nangoo liggéey nekk suñu mbokk suñu xarit suñu lépp di koy jaajëfal di ko félicité ci bis mag bi mu am nii Sara ak Arsenal ñu ngay xeex Sara Arsenal ñu ak Arsenal Sarah Arsenal mbay baay ba ka rek noonu combat bi nag diggante Sarah la ak ak Arsenal drapeau Modou Anta sans frontière eh, waaw xam nga Modou Anta ku ko tuddee lamb tuddee nga ko reporter yëpp wante ñu ngi bëre drapeau ba nga xamante ne bii drapeau ñaari jàmbaar ñaari xale yaa ngi doorante attention eh ma ngay ma ngay épercule Saara waaw Saara Saara a ngi dugg épercule attention Kaawo. kooku la lay kat appi ba juum na ko jeex na. Saara daan na ko. Arsenal daan Saara Arsenal daan na Saara. laa bës ba mu nuur bopp bi nga xamante ne bii moom mooy sa sa loxo droite mooy jaxaaw Tiitu Sidoor di sama rakk yi laa àndal fii ci arène ci arène nationale attention gauche droite waaw laaw na gauche droite ngeen taxawaat attention attention kawo ah fàttali na xale ba dooraat na waaw waaw dooral ma dóor ña ngay dooral te ñoom ñaar station kenn boobu la jàpp si tool yi di leen fàttali ñoom ñaar xeex nag mu dem ardo eh eh I'll be, I'll be, waaw Boy Diakhao ak Tigre Sior Cheikh Ahmed Tidiane Kébé laa àndal ci caméra bi mais Mbacke ngeen àndal ci arène nationale waaw ah, waaw ñoom daal bëgg nañu ba ci saako yi

combat bi. lu mu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat bi loolu ci bañul moom boo bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tafatine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tafatine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a laa ko teg làmb ju rëy la man li ma wax moom laa xam mun sama kopp fol de te incha ci kàttanu yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce moom moo ko déclenché man ak moom am na suuf nga xam ne du sedd te fu ma woo maa ngi koy xaar pare naa ci lépp. waaw d'accord loolu moom waxam la quoi. te maa ngi liggéey loo xam ne ni man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man. képp ci booteel Mboñaa nekk yéen wax ñu waaj parce que contre la dégg gis nañ stade bi ni ko def mais dama ko xeeb dama bëgg bii incha allah bu ñëwee ñu tëj porte yi ci kàttanu yàlla incha allah. salaamaaleykum mbokk yi le huit la Tafatine Boy Niang arène nationale le huit août incha allah rabbi dina tàng dina neex. waaw na ko amateur yëpp xaar la mu juree lay doon.